waaw euh, information yi ni jàllee rek ñu koy ñu déroulé quelques informations mooy que ni expert yi mandataire bu ONU yi nekk biir RD Congo ñoom dañ déclaré ni près de 300 ba quatre mille militaires yu rwandais ñoom ñoo ngi euh, jàppale rebelle yu M23 yi ñoo ngi xeex ànd ak rebelle yu M23 yi waaw ba tax na daal. Euh, ñoom mm, ñoom experts u ONU yooyu ñooñu nga xamante ni ONU moo leen yónni foofu ñoom ñoo wax lu mel noonu aussi tamit nee na bu Ougandais bi ñoom tamit ñoo ngi jàppale groupe bu M23 si côté l'est si euh, côté euh, l'est bu Congo rapport rapport bu Nations Unies moom moom moo wax lu mel noonu mooy ONU rek moom moo wax lu mel na près de quatre cent militaires yu 400 militaires yu Rwanda ñu ngi jàppale rebelle yi M23 aussi tamit côté l'est bi eh, wa Uganda waa Uganda ñoo ngi jàppale eh, rebelle yi aussi côté boobu lii eh, moom ku nekk ne début ba Rwanda da ko doon bañ mais léegi ñun lu ni fàng la lu kenn jeexatul la quoi moo tax ni waa Rwanda ñoom amatuñu lenn lu nu suy amatuñu beneen amatuñu beneen lay daal waaw beneen bi stop mooy que ni ah, ah, premier ministre bu indien ñu naan que naranda modi moom neen agsi na tey russie dafa am benn ah, visite officielle boo xamante ni mi ngi koy def foofu moom moom mi ngi koy def foofu ak président bu russie ñu naan ko vladimir poutine Mody nag ku nekk xam na ni moom signé woon na euh, maanaam daal moom dafay collaboré union euh, européen di collaboré aussi tamit ak euh, waa Russie ndaxte moom bu ngeen fàttali ko ci la bokk. visite bii nag xam naa daa nekk loo xamante ni du neex Occidentaux yi. waaw beneen bi stop mooy que ni Corée du Nord moom. mi contre exercice militaire yi nga xamanteni ni moom la sud coréen yi di def depuis quelques jours ak ay àndandoom Corée du Nord maanaam daal kontaan nañ si loolu def si mer daal ba tax na Corée du Nord mi ngi leeral ni yu exercice ay euh, provocation la quoi mais nag bu ngeen fàttalikoo Corée du Nord yi moom moo njëkk di def euh, ay provocation di leen envoyé ballon yoo ay mbalit ñoo si ba Corée du Sud ay alliés Japon ak euh, ak euh, Nouvelle-Zélande ak euh, Australie bare na daal former benn alliance comme OTAN la ñoom suma léegi ñoom ñoo ànd ak Sud di def benn exercice te waa Corée du Nord ñoom nee nañu loolu nee na exercice yi def dañ si tiir ay bal réel mi ngi mise à garde gra grave conséquences yi mu nar a indi moom euh, ñoom waa Nord. naanu daal li gars def provocation la lu na xew waaw ah, ba tey bokk na si information ministère bi ministre de la défense bu russe moom dafa def benn rapport ni euh, ñoom waa Russie def nañ mëne nañu benn frappe boo xamante ni dañ dañ ko def si groupe bu contre installation militaire industrie maanaam daal benn euh, benn kii boo xamante nii daal euh, usine boo xamante ni dafa waroon di defar ay ay aérien maam dañ ko commencé won di defar mais wa Russie nañ ñom yaq nañu industrie bobu aussi timi nañ attaquer nañu euh nañ lolu ben attaque la bo xamante dañ ko réaliser maam attaque la bo xam réponse la dal si tentative euh, bi nga xamante ni euh, ñoo ngi ko don def ñom wa Ukraine ñong ko don def légui wa Russie nañ lolu réponse la bo xamante ni def nañ ko aussi timi am na Euh, yàq yu ñu yàq yoo xamante ni ay installation énergétique la ak euh, économie waa waa Russie ñoom neen force armée bu ukrainien bi perdre na euh, beneen char beneen char Abraham moom la ministre bi ministre de la défense di wax si rapport bi nga xamante ni mujj mujj Ukraine mënagul dugg OTAN ndaxte dafa nekk benn état boo xam état de guerre ki wax loolu mooy njiitu OTAN bi ñuy wax euh, Jens Stoltenberg moom digg na ni adhésion wu Ukraine euh, si euh, si biir OTAN fii ak fukki at lay war a doon moom la déclaré moom secrétaire général bu OTAN naan ko Jens Stoltenberg ba tax na moom nee na daal amul kenn koo xamante ni mën na la wax. ma na la wax dix ans ma maanaam nee na personne na di exactement dix ans mais euh, maanaam daal euh, maanaam daal euh, su mu gudd mu gàtt daal dans dix ans am nañ yaqin que ni Ukraine ngeen ko dugal biir OTAN ndaxte Ukraine dafa nekk actuellement ni Ukraine dafa nekk ci problème yu garaaw moom la jot ci SNDR bi wax ba tax nee na nee euh, na désormais actuellement nii daal neexul ba neexul waaye Ukraine pour mu dugg biir OTAN il faut mu am waaw lii léegi nag lii moom dafay nekk loo xamante ni nii daal xam naa waa Ukraine ñoom buñ ñu ko dina nekk lu leen métti ndaxte ñoom chaque sommet ñu ni sommet bi dina def le tout bëgg dugal ci Ukraine nangam sànq tuuti tuuti retard doy waa daal li ñu doon wax rek que euh, euh, li euh, Vladimir Poutine di wax rek que ni euh, yi ak OTAN dañu jàppee Ukraine benn dañ ko jàpp benn boucle boo xamante ni daal dañ fa nekk daal di def affaire de banditisme ak di ko sponsorisé pour ñuy xeexal li ci yooyu. fii nekk si ginnaaw Ukraine daal di ko def loolu xamante ni mooy loolu mais daal at du yàgg moom di motax dal ak tay dal lolo la jëm sa standard la dal ci gut mu neexul ba neex waaye pour mu dugg que dekk bu nek état de guerre mënu dugg biir otan te pour mu dugg biir otan il faut maximum 10 ans waaw rek ta aussi tamit neexul ba neex mais taxe taxe yi nek biir eh, otan loolu bokk na ci kene amu ben état bo xamanteni ni ko duggal ci biir otan ba pare nga nek biir état de guerre te aussi tamit pour nga dugg biir eh, ukraine il fallait que Rodere boeren op aan in Pelego. Ay krompi euh, nga xam ko ay kromp ak ay euh, yoy yep dal dafa wara dañ serius. rew ñu saya saytu ko ba xol ni dal war nga mëna dugg ñu la ci sogu duggal bare na ay feland yi ni duggal ni nyu naqara riche motax ñukoy iya mais iya. doon yoon ak yoon rek dina tok ay at dina tok ay at pour feland ay suwat yi dugg biir otan ba bokk na si information yi euh, Shoigu moom dafa déclaré maanaam dañu menacer désormais directement maanaam dañu menacer États-Unis ak ak l'OTAN ndaxte nee na missile yi nga xamante Ukraine mi ngi koy sànni biir Russie Ukraine mënu ko def sans euh, dimbali États-Unis ak Europe te nee loolu moo tax mu mu mu looloo tax mu menacé États-Unis ak Ukraine ak euh, Europe direct te euh, ministre de la défense bu Russie bi waxoon na ko nee na missile yi ñuy jóor biir Belgorod ak biir Russie yëpp euh, satellite yu États-Unis ñoom ñoo leen di dimbali bu fekkoon ni du woon États-Unis duñ ko man ndaxte nee na daal nee na États-Unis dafa. jël benn satellite spécial jox ko jox yi pour ñuy mën a def yenn frappe ndaxte bari na missile yoo xamante ni euh, si satellite nga koy mën a ñoo koy guider satellite yi ñoo koy guider ba euh, ba fi bëgg mu daal fa mu daal loolu tax daal sooy bu moom sooy bu euh, menacé États-Unis direct ak direct ak OTAN maanaam bu fekkee ni li ñuy def arrêté wuñ ko dinañ jot seen réponse si lu yàggul dara ba tey bokk na ci information yi ñoom waa Kremlin moom neen catégoriquement dañu am ay désaccord avec euh, maanaam daal d'accorduñu ak Séoul maanaam Séoul mooy Corée du Sud Corée du Sud moom mooy Séoul ba tax na moom Peskov ne Russie ne Russie dafa war a choisir ñaari Corée yi kenn ku si war a moom la moom la ñu moom la presque wax mais nee na Russie yi moom dafa souhaité am relation euh, ak tous la pays mais nee na ñoom xam na ne Corée du Corée nee nañu du Corée nee na mais ñoom xam nañu Séoul moom dafa adopté jël position boobam kenn daal ku ànd ak Corée du Nord daal moom doo mën a ànd te lool nag yàgg na si Corée bi Nord ak Corée du Sud ba si Sénégal bii rek. Eh, am na ay jamono euh, président ancien ancien président Abdoulaye Wade bi fi nekkoon kii woon na lu mel noonu maanaam daal boo àndeek euh, Corée du Sud di nga man di teew ONU ak yooyu mais boo fa boo fekkee da nga ànd du Nord moom doo fa mën a mën a baat daal doo mën a am fii euh, ONU ay jamono Abdoulaye président Abdoulaye Wade ànd soppi woon na opposition di ànd ak Corée du Nord waaw mais nag xaw ma ma nag xaw ma kañ leen si génnaat mais daal Sénégal jëloon na position boobu eh, ñoom ñaari doo Corée noonu amul kenn koo xamante ni di nga mën a xaritoo ñoom ñaar il faut daal kenn ra nga a mais Russie moom dafa bëgg li bëgg waaye mais kii moom euh, comment dirais-je waa Corée du Sud ñoom le fait que ànd ak Corée du Nord rek. dañu bàyyi wu xam naa su ma koy jeexalee rek pour nek ci waar bi mooy que ni Ukraine ak Pologne dañu signé ben accord sécurité pour euh, ben accord sécurité même première fois même première fois depuis mam accord dem accord de sécurité am euh, ben manam c'est la première fois neen Ukraine ak euh, Pologne dañu signé ben accord sécurité pour bépp missile wala drone boo xamante ni doon nañ ko mu jaaree est espace aérien bu bu Pologne wala bu Ukraine neenu Pologne euh, am na droit intercepté la ne lii nag c'est la première fois muy soog a am accord sécurité bi xam naa fii la fii laa leen di tàggoo dina wax ne jàmm jàmm suba jàmm incha allah ah.